sant leen gërëm ci teewaay seen taxawaay bi ngeen fi taxaw ci événement bu important événement bu am solo la aujourd'hui suñu école euh, lot de matériel bi ñu recevoir pour li euh, ci tàggat xale yi dans le domaine numérique dafa nekk lu am solo actuellement ci monde bi ñu nekk on est mondialisation xale yi bu ñu nee manipuler ordinateur di si jàng di def seen exercice loolu dafa am solo kon nag di sant di gërëm ambassade Israël bi nga xam ne moom moo ñu baaxee nii di ko di ko wax rek euh, que ni coopération bi bëgg nañ ko continuer lii c'est un c'est une première partie donc euh, le projet continue. jéego bu ni mel lan la mën a indi ci doxalin bu yees ñeel école bi. waaw lu bëri lu bëri lu bëri parce que ñëpp xam nañ ni actuellement. xale yi euh, c'est vrai l'école dañ leen di tere ñu indi seen téléphone yooyu mais bu buñ leen joxee ay lien ñu wan leen nan la ñuy duggee ci lien yi buñ demee seen kër dinañ mun a xool ne def seen exercice ay recherche donc wax ni am solo la vraiment dafa amal xale yi njëriñ une pierre deux coups lañ koy def lan mooy jafe-jafe école bi euh, waxtu wi bi waaw actuellement amuñu jafe-jafe yu bëri benn jafe-jafe dañu am moo am ci école Sénégal yëpp ah, école yu jafe-jafe salle de classe te macha allah monsieur maire wax na ko léegi nee na suñu bâtiment bi nekk à gauche dinañu ko eggaleel rez-de-chaussée la c'est R plus donc incha allah dina ko eggale fii ay weer am nañ ci yaakaar lu bëri sinon moo amuñu. dégg naa dégg nañ ñu wax terrain de sport. waaw terrain de sport bi tamit ci la bokk lépp rek moom. il nous a promis te je crois que dina ko def parce que comme ni ko monsieur Ndiaye waxee sànq ku la jox euh, la añ ku la nii indi reer macha allah da toog di xaar rek te xam ne dina ñëw. c'est nga mën nga présenté euh, madame Diawo Fatoumata